aasbillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmanirahim bokki jullit ñuy seetaan asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fukkeelu guddi gi ak eh, juróom-ñaar dafay nekk fukki rakka di juróomi sëlmal rakka bu nekk am suratul fatiha am ñaari ixlaas ak ñaari ina anzalnaahu ku def naafile yi ba pare ñaan goo ca teg rek ak salaawaat yoo ca teg julli ci yonent bi wala nga def ay istixfaar baax na ba tey wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasabbihu laylan tawila inna haulai yuhibbuna alajilata wa yadharuna waraahum yawman thaqila nahnu khalaqnahum wa shadadna